Boy Faye war door ci suuf Boy Faye dem na final mbokk yi de Boy Faye a noonu finalu Youssou Ndiaye ngel jonn demi-finale baa ngi noonu Serigne Bassirou Youssou Ndiaye moo la woon ginnaaw ngem Lagos bi ngel jonn moo la noonu féete leen di joor Boy dem na final ku daan Boy Faye ngay am Youssou Ndiaye daw na jël ko ngel takk na ko forcé ngi Youssou bañ na ngel jonn Youssou ngel jonn jël na tànk ba Youssou bañ na jàkkandalu nañ war na ko ndomba dara amul dara amul dara amul wala déet ngel ngel jonn daan na Youssou Ndiaye arbitre bi na loxoom ngel jonn booy fay final <laughs> waaw waaw mais lii du yoon moom moom dañoo bëre ñu nga doon dem ba ci saaku yi yaa may dégg arbitre sifflé ba pare mu ma placage ñu dem ci saak bi ñëwaat ki mënu ma daan arbitre ñëw jox ko victoire la moo tax barke alxuraan amateur ak kenn nanguwul nañ bàyyi affaire yi ñu ñëpp ay séeréer leen fii amul ay séeréer la olof ñun ñëpp ay séeréer nañ ko teg si yoon waay maa ngi ñaawlu lii maa ngi sant sama gaay ñoom Papis ñoom Nicolas ñoom Ndiara Faye gaay yëpp ñu may taxaw barke alxuraan mooy loolu wasalaam ale boobu maa lay gis liggéey bu rafet yaa ngi koy liggéey ci lamb simple bi waaw dëgg la ñu lay liggéey ay xale leen ñëw fii ñàkkante ko mënuñu ñu ëpp ñu doole wërsëg mi fépp li ma la waxoon rek yàllaa ko yor maa sand sant gërëm ñëpp. bilaay wala ba. maa lay siyaar. yaa ngi si jàmm. yee maa ngi sant baax. tey nga ñëw séeréer ban yëg-yëg am rawatina ñu tuddee ko kenn koo xamante ne ku xam seen diggante xam ne bëgg na la bëgg nga ko ban yëg-yëg nga ci am tey. waa sant yàlla rek ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di wax jërëjëf Serigne Touba ñu ngi sant Sénégal yëpp waa tey moom xam nga. ñëw naa samay mbokk parce làmb amul simple amul bëre dóor képp kuy tax ngemb rek ay mbokk ngeen tey ñoo assisté ñoo ñu tuddee sama jabar drapeau bi maa ngi si contrat sax mais mbaye moom lépp lu mu xewle rek lu ma jàpp baay ma ñëw si rawatina jëmm ji toog sëñ Bass waa di wax na xam nga man Sénégal laa mënu ma am lu wees Sénégal di Sénégal yëpp nañ ma ñaanal sama combat ma jëm man ak bébé bis mi le 19 avril yàlla may ma si ndam di wax nag man du ma séeréer quoi mais damay dund séeréer si dama leen di dund bu baax a baax a baax a baax a baax di wax na ma séeréer si yeeg joolaa yeeg njaago yeeg soose ñëpp ñaanal si combat bi ma jëm. waay bi nga am bébé bis bi nee na ma ñeme woo taxaw samp jaaga seen diggante yéen ñaar. waaw yàlla baax na yàlla ci yàlla yóbboo ak jàmm man moom xam naa rek amul sama benn combat boo xam ne rek ñoo naa war a ñàkk fayda a yaafuus damay def li nga xam ne moom la ma. su ma pour su sand ma appliqué lu ma yàlla jox ma jël mais incha allahu rabin le 19 avril gars yi dinañ gis yàlla baax yàlla baax na yàlla baax na. la première dame maa ngi lay nuyu. maa ngi fi maa ngi lay yëg-yëg nga am ñu am bés bu mel nii tuddee la ko ngay soxnay mbër ban yëg-yëg nga am. dama kontaan man euh, yàgg nañ ma bëgg a tuddee drapeau ma bañ may du du ma nangu. mais ñii samay mbokk lañ munu ma leen ko bañal man séeréer la lu bari nag nit ñi xamuñu ko sama yaay séeréer la sama papa mooy njàmbur njàmbur sama yaay séeréer la ak lébu mooy njàmbur njàmbur mbaye lum di sama xarit bëgg ma lool nag donc jox ma cër bi mënu ma ko bañ. nga ñëw gis say jëkkër ngemb di bëre ban yëg-yëg nga am. ñoom ñëpp samay xarit lañ ndeysaan te ñoom ñëpp ma bëgg ma leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm ah, que le meilleur waaw mais ñaanal sama jëkkër combat bi mu jëm yàlla na ko suñu borom suturaal may ko ndam. xam ki mu jëm. non xaw ma bébé bis. bébé bis ko moo mujjee ba aada faas. non xaw ko mais yàlla baax na yàlla mën lépp yàlla na yàlla. nee na daa ñu xeex ñoom ñaar te ko xam sa jëkkër xam ni gars yi xeexoo gënal gars yi ah, waaw. <laughs> sagam sagam sagam kii xeex te kenn du la fay buñ la fayee pour nga xeex nan la war a demee xeexkat la nag ak mën a xeex man jour bi ma taxawee xeex ak 30 personnes ba ñooñu daw man ci laa paree ci àdduna ki laa ko bàyyee. jaajëf papa la bu wér a wér. waa jàmm rek ah. eh, nag yàlla yàlla defal jàpp ñëpp ci barke Serigne Touba jaajëf. Adama. <laughs> Sirou classico bi tay lii mooy Barça Real classico bi classico bi Barça Real Barça Real maa lay nuyu ngel ah yaay kan maay Real maay mooy Real yaay Barcelone leer na classico bi ci Wassare Lamb nga koy amee lii mooy classico Ngel Jonn Boy Faye Adama Diouf ndeysaan moog Papa Boy Djiné ndeysaan Adama Diouf Papa Boy Djiné ambiance waaw ñu ngi fii ci terrain gaal gi bas ay waay Adama Diouf ngi toj fii arbitre bi sifflé na mbokk yi ñu ngi fii ci Adrien dox ci diggante Boy Faye ak Libidor ak Ndial Jonn mbokk yi ñu ngi nee li ma lay wax léegi ndeysaan Boy daw na jël ko Boy Faye daw na jël ko Barça Real la Barça Real la ngel jonn Boy Faye Barça Real la ngel jonn Boy Faye daw na jëli ko daw nañ ci digg géew ngel jonn ngel dakk na ko rëpp na ngel jonn ngel jonn ma la ginnaaw Boy Faye ngeen jàkkaar lool final bi fii ci Adrien Senghor Boy ngel jonn a ji neex na Barça Real la Ngel nee na moom mooy Real Boy Faye nee moom mooy Barcelone hey ñëwaat nañ avertissement Ngel Jonn Ngel Jonn génn na Ngel Jonn Boy daw na sol ko Ngel Jonn ak Boy Faye nañ Boy Faye bu na ko génn nañ mu bañ Boy Faye sëq na geeño am na ngemb Boy Faye jàpp na ngel jonn ngel jonn jàppul Boy Faye bëtt na ko caxabal na ko mu bañ Boy Faye lu mu nar jàpp na ngemb caxabal na ko mu bañ génnaat na saaku yi ngel am na deux avertissement ngel jonn am na deux avertissement su amaatee beneen ñàkk combat pour Barcelone zéro pour Real ah Ngel John moo ma ko wax mbokk yi moo ma maay Real Boy Faye paqueté na ko génnaat na jeex na Boy Faye jël na ndam li Boy Faye daan Ngel John Boy Faye gagné Ngel John Boy Faye gagné na kaay ndeysaan Baskaay bul fàtte sa saak bi Ngel Jonn nee na moom mooy Real nga ne yaay Barcelone nga dóor ko 3-0 génnee ko mu am 3 avertissement nga daan ko. li ma la waxoon démb laa lay waxaat tey mënuma kenn yàlla may jox ndam rek yàlla na jàmm yàgg sama yaay fa mu sama papa fa mu tëdd. loolu ko gënal fi mu jóge sama yaay. yal na ko yàlla may wér feebar bi yàgg na lool yal na ko suñu taxawal moo tax may soon ak sama soxna ak yaayam sira ak yaayam ñi daan juuf ak magu yaayam mère ami juuf aw ma seen fay ñu may taxaw bu baax ak sama mag bi victoire bi xam nga ñu wax may waa Mbelgoor gépp ak waa Jilaxaar gépp ak waa Loul Sessène gépp foofu laa mën a yal na jàmm yàgg ñëw xalaatoon na nga ne jël man damay jël làmb man damay takk ànd ak yàlla ba lu yàlla jox ma xam ne loolu la kenn mënul yàlla rek a mën yal na jàmm yàgg ji li ala di jomala mu jobe ko kon ñaan tey sa fan si club bu Mbaye Ngouloum organiser bis bu mel nii ban yëg-yëg nga ci am. non kontaan rek comme ni ma koy waxee kontaan si ñoom te du ma mos a tay si ñoom te chaque jour maa ngi ak ñoom lu ñu xew le muy lu baax muy leneen ñaan ñaanuñ ko yàlla nag mais lu neex ak lu naqari ñoo ànd mais man jóg naa pour seq ak ñoom lépp incha allah. tey ñu décoré la jox la lii nga xamante ne sa xarit la sa doom ndey la loo bëgg la muy micro. macha allah yàlla may la ci ban yëg-yëg nga ci am. non kontaan rek parce que tey lépp lu ma am lii moo ma may képp ku ma xam lii moo ma ko may te grâce aussi à Khady yàlla ko yàlla yërëm lépp moom la delloo naa ko koy tamit fa mu tëdd yàlla na ko suuf yàlla na suuf oyof si am te xare ko àjjana waaw. sa digganteeg Ndeye Gueye lan la. sama digganteeg Ndeye Gueye sama doomu ndey la te yàlla xëy na ba boole ñu. parce que bi mu ñuy boole jëkkëram moo doon bëre mu woo ma ne ma dama man la ndey man ne ko ndey ban mu ne ma ndey gay mu ne ma papa daa am open press dama bëgg nga woyal ko noonu lañ jàppante aussi te booba léegi dara ñaaw si aussi mu nekk nit ku baax heure bu ma ko soxlaa dama koy woo lu mu guddi guddi lu mu naaj naaj saa yu ma ko woowee dafa may décroché saa yu ma ko envoyé audio daf may koy delloo parce que itamit ñun gis nañ fi ay artistes ba sonn gis nañ fi ay artistes yoo xam ne pour jot leen dafa jafe te Ndeye Gueye nekkatul ku ndaw Ndeye Gueye ba mu nekkee ci aar bi ñun ñëpp boobu ay xale lañ di dégg Ndeye Gueye yàlla def ñu màgg ba yàlla boole ñu kon macha allah moom aussi di gërëm jëkkëram parce que moom mënoon na koo nangu jëkkëram bañ mais da koo nangu jëkkëram parce que jëkkëram même buy entraîné te déggu séeréer mais buy entraîné mbayang lay teg kon xam nga loolu bëgg la voilà loolu la. loolu la ma ma séeréer du ma séeréer mais damay dund damay dund séeréer. chaque jour loolu la may wax muy ko papa muy ko ndey gay dañuy déggante ak lu mu munti doon dañuy déggante waaw mais daal euh, yal na ko yàlla yokku papa dafa am combat may ñaan na képp ku séeréer rek nañ ko jàppale. parce que nit bu la gëmee da koy gëm nit bu la bëggee da koy bëgg jàppale ko ca la mu doon ak ca la muy def waaw. Ah. kon mun day jàppale ki nga xamante ne mooy Papa Boy Djiné ci combat bi mu jëm. waaw ku dul papa sax man ku ma yëg man li may wax dama koy wax te dama si insiste di si wax te ragaluma ci man ku ma jàpp te yàlla tax rek ma jàppale te yàlla tax parce que nit amul leneen lu dul boppam man suma bopp laa am respecté suma bopp nag parce que man damaa gëm suma bopp kon ku ma gëm ku nekk dama lay gëm loolu la rek keneen ku dul papa ku ma gëm dama la koy delloo ba mu doy waaw. jërëjëf ñu lay jaajëfal bu baax. jërëjëf ok